salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yu Amsa TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sargal bu baax a baax tey rafetlu ànd beeg ñun dellu si nañoo ak yéen nag ci nu ko baaxoo defee rek jotaay yi nga xam ne moom la ñu faral di am ak kilifa gi Serigne Mouhamadou Moustapha Dieye kilifa gi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la baax a baax a baax di la bàyyi ngeen ñoo tekk soppe yi nga xam ne ñu ngi lay bàyyi xel fii ci Amsa ñu ngi lay fay di wax salaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Ibou. waaleykum salaam. di ziar di nuyu. àdduna bépp nuyu bi gën a sell nuyu bi gën a tedd nuyu bi yàlla santaane di wax salaamaaleykum wa rahmatullah xanaa day sant yàlla rek mhm. balaay dara di xew te mu xam ni yitteel nañu balaa ni dugg ci benn yitt mhm. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. yàlla defati na la ko neex def ko ci jaamam boo xam ni nag ni ko jaami xame kenn mënu ci waxe ba jeexal ci xam naa ni daan ci dugg waaye moom la ñuy ubbee ndax lu nu sonn sonn tey sunu ngor sunu diine sunuy mbokk sunu derit mayunu nu fanaan ci lal te waxunu ci jullitu yàlla boobu imaam bu tedd boobu ki nga xam ni dawal na lu mu man ci ci ci ci bëgg bokk ci jàmbaari lislaam ndax lislaam alal yàlla la daw na ci lu mu ci man ngir wax ak ndaw ñeek mag ñi ngir encadré ci réew mi mu nekk ak lu dul ci réew mi ndax koo defar ba mu mën génn ci réew ba mën a toog ci réew te yàqul dara ca réew ma ba ñëw di la ziyaar di la màggal kooko am nga njukkal di massawu coona ak njabootam di bokkak ñoom nattu bi di ko jaale nag àdduna bépp duma ni réew mi àdduna bépp ndax am na ku ko nawloo sax te mënoon na bañ dégg la muy wax muy imaam Aliou Ndao mm-hmm. nu dégg dégg dégg bi mm-hmm. di ñaani yàlla mu yërëm ko xare ko aljanna amiin bëgg nañ ci yaatal Cheikh Ibou mm-hmm. ndax moom kat nag mm-hmm. bu nu waxul ci moom mm-hmm. xawma ma ku war a faatooti nuy wax si yow ndax jaar na fi mu war a jaar te taxul mu doon la mu war a doon dëgg la te wàññeekuwul maasul war miitewut transimewut yàlla ak yonent bi rek ko ñor. dëgg la yàlla na ko yàlla yërëm yërmaande yàlla fekk ko ci bàmmeelam ta cat bañ ko fa jiitu amiin amin amin eh, sëñ mhm. loolu la ñuy ubbee sunu nuyoo. Mhm. di wax ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah kilifa gi xam naa fi nga daanalee nuyoo yi sax ci eh, kàddu yooyu noonu la ñuy yëkkati waate ñun tim sunu kàddu. Mhm. di jaale eh, képp koo xamante ni rek jullit nga nekk ci réew mi. baa nga nekk bitim réew ki nga xam ne moom moo di imaam Alioune Ndao ni nga ko waxee noonu la amee kilifa gi te buñ la doon laaj nag nga gisee génn àdduna imaam Alioune ndaw wala ci dundam. jeexital yi nga xamante ne noonu la def ci jullitu yàlla yi lan nga ñu ciy leerlal. waaw soppa naa ko. Mm-hmm. ci li muy wax mu mm-hmm. honnête ci moom te dëggu ci moom. Mm-hmm. Hmm. soppa naa ko ci am fitam ci li mu war a am fit. <laughs> muy ci lislaam soppa naa ko ni. du nit koo xam ni danga koy woo ci roq. jox ko leen ko jox ndax xam naa ni ñàkkul ni dégg na ko baa gis na ko. ndax def nanu ko sax ñu mel. ñu meloon ni moom mm-hmm. ndax duma ni ñu mel ni moom mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> dëgg la sopp naa ko ci loolu ndax nit danga naan ko jàkk am loo xam ci moom baa nga am nooy yëg ci moom dëgg la <laughs> dëgg la te loola sañu nu ko weddi ndax dañuy dal ci nit Moustapha dana xool kenn mhm. am lu mu gis ci moom baa mu yëkk ci moom mhm. am ko xool Moustapha am lu mhm. mu gis ci moom baa mu yëkk ci moom ñun loolu dal nañu ci imaam Aliou Ndao ndeysaan man dey wax dëgg yàlla ni amul fu ma ko daan dégg gis te duma ko déglu amul image bu ma mënti gis ci moom dama koy déglu te lii ma la wax nii laa la wax ni mi ngi ci moom. sa am na ñu ko gën a xam ci moom. dëgg la. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. kon lislaam bi. Mhm. ñoo ñàkkati jàmbaar rek. <laughs> bi moo ñàkkati rawatina fii ci réew mi ñemekatu wax dëgg. imaam Ali Ndaw dama koy xoole tey ji suba rek laa ko wax. Alaaji Sidi Lamine Niass. dëgg waaw. ci lu mu metti metti naa ko jaayante mm-hmm. ci mënu leen fexe ba li ma bëgg a wax lu wàññeeku tarfatal ay ni ci kum man ci doon ci àdduna mm-hmm. man loolu yàlla xam na ne ni mm-hmm. dama ko ci nawloo dama ko ci sopp ak yeneen sëriñ bi waxaguma sax ñi mu doon encadré ñi mu def ci ñoom li nga xam ni yàlla moom la wax ni nanu ko def ci ñëpp <laughs> muy alxuraanul karim di ko tedd di ko sell moo tax daal sëriñ bi yaa ngi ni laaj ci nit ku riche ci lislaam di ko tedd ci lislaam <laughs> loolu ko rëy na ci ñun. <laughs> dëgg la ndeysaan kàddu ah, yi waaw rëy na ci lool. kàddu ndax la ci ñun. ndeysaan yàlla xam na ko. mu ne ko kàddu yu nga ko mm-hmm. daanale rek mooy lu am solo. muy nit ku mm-hmm. riche ci lislaam waaye itam nit ku am solo ci lislaam kon euh, ñaan bi ngay faral di ñaan naan yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeelam. amiin yaakaar naa ñaan boobu dina am solo. xanaa ma jaale groupe àndandoo som sàmm jikko yi. groupe sàmm jikko yi. Mm-hmm. waaw. ngi leen koy jaale. di ko jaale umma islamique bi yëpp. di ko jaale këru diine yëpp. ndax ni ma ko gisee woon moom ni ma ko xamee. Mhm. xam naa ni fépp lam ags waaw <laughs> ndax kenn mënul xam lan la doon. Mhm. lu dul jullitu yàlla. Mhm. bu wér. beneen numéro te mënoo ko génnee ci moom. ndax mënoon na waxtaan ak ñëpp. dëgg te def ak ñëpp. te fa xam na fu muy tàmbalee xam na fan lay yem. te ku mu defar boo gisee xam ko. dëgg la léegi-léegi nga dégg ñu rab yi dañoo mer yi ci réew mi. ñooy cause accident yi. ñooy ko yeneen ak yeneen. Mhm. lan mooy merloo rab. dëkk fu ko neexut. dana merloo rab. te waxtaanoo ak moom. d'accord ndaxante woo ak moom. Mhm. jël ndox mu tàng di ko tuur fi ci suuf. Mhm. ak di tabax fu mu gën a lut. mooy daanuloo say doom yëpp. ba mu teg la ci loo xam ni yow boroom kër gi. dangay feebar ci saa si moo waral léeg nit toxu rek. am tension bi. ni tuddee AB. AVC. moo dal ko. d'accord mhm. dara ma su ko kon dem ci kër mi ngi dal ay kilif. d'accord mu dem ci këram rek. mëni mhm. gàpp dara mënatul lamin wi dem. Mhm. lépp dem. fekk yoo sëriñ bi. guerre la. Ah. mag ñi masuñu dëkk fenn noonu. li nit ñi jàpp ni mooy dëkk bu wóor du dëkk bu wóor. tabax bâtiment def ci béton armé. Mhm. fer bu doy. Mhm. ba wut fer douze ba quatorze. loolu du dëkku gi de. du assurance bi. Mhm. Ah. Ah. mag ñi dëkkewuñu woon noonu. mag ñi néegu ñax daan nañ ko yor. am yeew sax walla lu dul yeew. di kurkuri di wër néegu ñax bii di gis bën bën bu mu jaar waaye xalaatu fa jaar. <laughs> ndax nag. am na lu fa ne. te bu fa duggee rek dootu fa dugg. ak yeew gu mu yeewoo. kon su ma la déggee kër dañ koy ñàkk. bu baax sëriñ bi. d'accord tey it dofu la neex dëkk. Mhm. am na ñu mel ni rab mën nañu dëkk ci rab yi. Mhm. <laughs> na ñu mel ni rab mën nañu dëkk ci rab yi. sëriñ bi loolu jar na leeral de. waaw <laughs> palaasu rab nga dëkk fa. Mhm. dana indi yeneeni détail. d'accord tur foo xam ni. du yoon dana indi yooya. tuur ndox mu tàng fu la neex moom doo jug ci doom yi daanu. <laughs> mais <laughs> ba tey su ma desee ci rab. waaw léeg-léeg da toog nit sax muy la man damaa fees dell. léeg-léeg nga toog nit maanaam damaa amee rab sëriñ bi ku am rab naka la ko mën a xamee ci ay nelaw la wala ci nu muy doxee la wala naka la nit mën a xamee moom daa bëri rab man ni ñëpp am nañu rab. ah kon ku ne am na rab. wallaahi. te li ci gën a néew fukk ñaar man na ko doon. gaa ñaanaan benn rek de. fukk ñaari rab. mën na ko doon. est-ce que. man nga am rab boo xam ne xam nga luy jikkoom. Hmm. siis rek. ah rab bu siis. waaw doo bokk kenn. man nga rab boo xam ne xam nga loon mooy jikkoom. Hmm. bëgg da ngay boole nit ak nit ba pare. Hmm. déglul wax ji de ba pare <laughs> ñaane ko. <laughs> Ah, am na rab bu lay soxorloo. jigéen ñi <laughs> pourtant am na ñuy ñëw fii di ko faj pourtant. nit day ñëw fii nii sëñ Moustapha léeg damay soxor ci nit rek te ma lu koy waral. billaahi waaye bu koy wax day jooy. loolu moom loolu feebar la. nag waa am na. Mhm, mhm, loolu moom feebar bu métti jigéen mhm. jigéen dana jël moroomu jigéenam. may ko càmminam. waaye gis nga bis bu ndaw si neew moor ma jëndal or. <laughs> dootu ko waxati. <laughs> waaw. pourtant du lu naturel. bi mu koy def nit kese la. dëgg la. <laughs> waaye bi coow lii de am doonatul nit. keneen dugg na ko. rab am na. d'accord te danoo sakkan. Mhm. kenn xamul na nu toll. Mhm. nee naa la. Mhm. ñett lanu ci ñun. te seeni at ndawut. ñoom rab yi. déedéet ki toll ci diggu dooleem am na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk. d'accord <laughs> mais nag dafa mel rab dañ koy activer de. ah yàlla activé na ko de xaw ma keneen. non yow ci comme par exemple ci sa bopp yow mi nga jékki-jékki rey yoo xamante ni moom mooy tax rab bi rab bu soxor bi ci yow di activé wu. waa booba. Mhm. dafa fekk ni yow sa wàllu bopp xam nga tey rab mën na jóge Guinée Conakry mm, topp topp ma man. Ah. <laughs> waaw. Mhm. du jullit. dañ ko doon tuural. Mhm. soit dafa rëcc. soit dafa gedd. soit dañu ko dàqe fa mu jóge Ah, mu koste fenn mhm. jigéen romb ko ba góor gu sàggan ci solo ah. mu ànd yow jigéen baa góor bu sàggan ci solo waaw wow mu ànd ak yow d'accord bu <laughs> dee góor gu sàggan ci solo mhm. man ngay dem ba ak jamono mhm. man ngay bàyyi sa jabar ci kër gi feeg wëri woo ba quatre heures du matin doo tëdd si ah sëñ bi loolu moom benn feebar la. ah waaw. Cheikh Djibou gars yi ñooy caaxaane rek. waaw boobu rab am na. boobu beneen feebar la sëñ bi. <laughs> est-ce que xam nga ni rab dana la tam loo doomu aadama dëmm. te fekk du dëmm. est-ce que. rab. Mhm. gi dana am de. Mhm. ndax léeg-léeg nga dugg foo xam ni foog nga daanu. te maasoo daanu. dëgg la dëgg la. <laughs> <laughs> dëgg la de. am na ak yeneen ni ma la ci mën a wax. mais sëriñ bi pour mu mucc ci yooyu noonu naka la ñu war a def. waaw nit ki li njëkk mu xam fi muy teg tànkam. Ah, xam foo jëm. xam li ngay laal. Mhm. xam loo loo warut a laal. Mhm. am na loo xam ni boo ko laalee yaa yëngal say rab. la maam waroon na la ko laal loo sax pour nga laal ko. yaa activé say rab. waaw am na ñoo xam ni waruñu tur derit ci àdduna. Ah. <laughs> waruñu ko def. Mhm. jamono ji nga koy def sax ñu ngi lox. dëgg la <laughs> dëgg la. moo tax yooyu ku ko xam da koy moytu. ki rab jàpp dëgg nag. Mm-hmm. ci bët yi sax dana ci feeñ. ah ki rab jàpp. Mm-hmm. day mel ni sëñ Moustapha rek léeg mu ne xëj di xoole. <laughs> waaye lii mm-hmm. mbir mi mooy. rab yi ngay àndal ndax ay jullit lanu ndax yu baax lanu am na rab boo xam ni. kenn du la laal. ah am na ah, boo xam ni. daf la bëgg ba di la xañ ñi la bëgg. <laughs> dana yóbbu jigéen ci juróom-ñaari sëy dana yóbbu ci jigéen mel nu la neex mm-hmm. ku la gis kii boo moytuwul ci m takkoo ngay mujje <laughs> ndax da naan man kay ba ci dara lu ma am jël ndeysaan fekk yu <laughs> mm-hmm. am na foo toll woon mm-hmm. nu mu demee Cheikh Ibou rab rekk am li ma ci mën a wax bare na mais sëriñ bi pour tëj pour tëj parenthèse rab rab ak jinne ah, benn la rab tur la woo xam ni mhm. boo demee ci àll bi doonatoo wax rekk mhm. jinne jii ngay wax ndax jinne moom yàlla jinne la indi mhm. olof moo naan rab waaye boo demee ci àll bi mbaam bi ci àll bi rab la ah. <laughs> gi ci àll bi rab la moo tax léeg-léeg nit ñi indi ci ay polémique <laughs> am ñoo xam ne nag. Mhm. dañuy wax ci rab nag. ay xàmmeewuñu rab ak ginne nag. Ah. <laughs> ça veut dire que mhm. boo nee leen ndax rab ak ginne yam ne la déedéet yamut. fikkti yoo mhm. jinne sax am na ci turu rab mooy tur wi ngay woowe yee même moom dafa mel ni sax moo ci ëpp a bayre rab la wolof di wax waaw wala fay wala fa waaw waaye alxuraan moom jinne la indi ba ni xula uuhiya ilayya mm-hmm. annahu stama nafarun minal jinni yàlla moom jinne la wax parce que dama ci dégg benn sëriñ bu ne am na am na am na am na lu ëpp téeméeri ji jinne yoo xamante ne ci ay service am la ñu nekk sëriñ loolu nit attan na ko <laughs> ah man comme xamuma ko moom miy wax mm-hmm. duma ko weddi waaye su ma ko gisoon. Mhm. naa xam li muy wax. Ah, boo gisoon di nga xam xam yor nañu ndax ku néew xam-xam laa ci rab. Mhm. waaye. Mhm. ñaan naa yàlla bëgg ci doon ingénieur. <laughs> <laughs> bi dégg naa. waaw ah. <laughs> ah. waxuma la ci technicien ndax dafa am boo fu may yam. waaye li gën diis xam ni foo ne ni sampa ko boo ko sampee xam ni. xam-xama ko fi samp. dëgg la bëgg naa ko ci doon. dëgg la moo tax bu nit waxee. <laughs> Mhm. yàlla xam na ni bu ko sax si jinne yooyu rendre woon benn service. su ma mhm. lox su ma ko xoolee. Mhm. ma wax la ni li mu la wax am na. d'accord sëriñ <laughs> bi damay tëj parenthèse yi rab. <laughs> xam naa dinaa ko dinaa ko indi ah, jotaay boobu xam ne spécial spécial la ñu waxtaanee ah, mm. nga xam ne moom mooy xewtu jamono. sëriñ bi ban ban ban ban danger moom moo nekk ci seetaan vidéo yi nga xamante ni dafa am caractère pornographique. ban ban ban jeexital la mën a def ci nit ki. wàññi sa ngëm yàlla. d'accord indi la am tawat joo xamut. Mhm. di la lëndëmal ndax du la leeral. surtout da lay lëndëmal. waaw ba pare da lay tëj. ah day tëjaate tamit. bu baax a baax. est-ce que waaw. Mhm. ñun nag jàppewuñu ko dara. Mhm. waaye ñi ko xam dëgg. xalaatuñu ko dunde ndax danu ni rek fo. ba sa dara génn. bàkkaar mën na la ci fekk ci gàttal fo rek. Mm-hmm. waxatuma nag ngay fo bay xool ñuy fo. Ah, waaw boobu de ñaari baakaar la. <laughs> boo yaa ngi fo bay xool ñuy fo. dëgg la di foyee sa xel. Mm-hmm. di foyee sa xol. Mm-hmm. di foyee sa ngëm-ngëm. dëgg la. <laughs> xaw ma dégg nga wax jéem dégg naa la de. waaw <laughs> ah, kay nag doonatul. prix en yaa ngi ci détail. Ah. yaa ngi détail foofu. waaw te détail yi. dang jàppal ni piri bis day ñëw nga dem ci dataase mm-hmm. ndax lii mbir mi mooy mm-hmm. day tolluk jamono mm-hmm. dana la dundaloo mel ni ki tàmm tox ba xam ni su su toxul du am jàmm fa nga yegg danga da dul xam nag contrat bi nga signé kañ ngay bàyyi loolu lay wax ji nag nga dem ba nu naan la papa naan la maam naan la nijaay te teewul yaaga ca la mais sëriñ bi loolu noonu est que du yóbbee nit bi ko tàmm di ko def du yóbbee nit ba mu dem ba mujj gi dootul dootul amati benn sens limite ci nit kum gis rek yaakaar mun a kaa tëddee xam nga ndaw ñi buñ leen dañ leen di écouper mm-hmm. di leen di jox ay dog mm-hmm. nii déglu mm-hmm. ñee yàlla may te nu bokki jikko nag jikko ji nag mooy ñe leen jiite gën leen ni jikko ñi leen jiite gën leen jikko waaw dëgg la léeg-léeg ngay roy nit ba si yàgg bëgg ko rey dëgg la dëgg la de <laughs> dëgg bu wér. ndax dafa tas sa yaakaar. <laughs> Mhm. sa diggante ak moom. dëgg la. <laughs> Mhm. sa xol dootu ko mën a supporter. dëgg la sa xel dootu ko mën a supporter. Mhm. waaye bul xool la muy def. xoolal lam lay wax. bu dee ab njariñ rek moo nga ca. mi ngi mel ni ki ni la mënuma la yóbbu ca ambassade ba waaye fee la. d'accord. Hmm. am na njariñ dëgg la doonte indil ci ñàkkum kersa de. waaye amal na la njariñ ca lam la wax. la. <laughs> kon yooyu. Mhm. dana ci am. Mhm. waaye ci état bi ndaw ñi. Mhm. li ëpp solo ci àdduna. gis nga du jox sa sëriñ alal. mooy sa ñoŋate. dëgg la du mooy sa ndimbal. du mooy sa sutura. fexe ba mu defal sa ruu gi. defal sa jëmm ji. ba nga man di defaraate. loolu muy mbir mi sëriñ bi. la dëgg la hmm. <laughs> mais sëriñ bi jafe-jafe yooyu nit ku ci nekk nag ba bëgg cee gir nag ko mën a jàppale. bu baax ñu ngi ciy dimbali ay nit am na ñoo xam ne sax teguñu leen bët ni ne newuñu ci réew mi. Ah. waaw waaw. est-ce que waaw newuñu ci réew mi. Mm-hmm. moo tax maa ngi nuyu sama wëllëre. Mm-hmm. moom moom moom moom du ma ni taalibe su ma wëllëree la. su ma mbokk la. Mm-hmm. Ibrahima Seck. ci réew mi nii wax France. di ko baax. di ko nangu. di ko laabiir. di ko bëgg. ab kilifteef da mhm. koy ormaal kilifaam yàlla na ko yàlla defal jàmm amiin moo tax sëriñ bi mhm. am na ñoo xam ni baax rekk leen yitteel dëgg la ku leen sant noo def mhm. ku leen tere noo bàyyi ndaw ñii bëgg nañu ko waaye léeg-léeg dondul xam yoon yi ñenn ñi nag fa du njëkk a jaar dafa jaxasoo ba ñoom xamatuñu sax fu nu war a jëm. wallahi ndaw ñi bëgg nañu lu baax. Mhm. man xam naa loolu. moo tax. Mhm. fu ku ci mën a toll foofu. Mhm. man nga am yu baree bare yu mën a changer ci loolu. surtout mais amul leen luñ ci mën a détaillé tey. <laughs> ah détail bi du dara sëñ Ibu mooy. <laughs> ku mu dal. ndax am na ñoo xam ni sax. dañuy jàng. <laughs> du ma sax tooñ naan lii la ñu jàng dañuy xam nañ daal waaye ñoo nga ca. <laughs> dëgg la de. ñoo ca mënuñu ci dara ñoo nga ca. <laughs> dëgg la de lii la jàng. ñoo nga ca <laughs> ah ma déggee rek daanoo xam li may wax. te defe naa dégg nga ma. dégg naa la bu ah, waaye da ngay xam ni lii feebar la. dëgg la de cat la. Mhm. gàllankoor la. Mhm. te dëgg la. waaw baaxul. dëgg la dëgg yàlla. Mhm. day wàññi sa ngëm-ngëm bu baax sax. wax dëgg yàlla. waaw te nag dafa doy waar daal. Mhm. <laughs> am na solo waaye sëriñ bi fi mu toll nag dama bëgg a dugg ci ñi nga xam ñoom ñoo bëgg def entretien ci seen yaram. Mhm. muy góor ñi nga xam ne seen huile seen seen huile kuule na. seeni i mbëtër yàqu na. li ngay faral di wax naan seeni i montor doxatul. sëriñ bi ñooñu nag nga leen mën a jàppale. ndoxu mm, koko mm, koko. ndoxu koko. ak Fatiha. ak ndoxu koko mm-hmm. ak yaasin ak yaasin ndoxu koko mm-hmm. ak ya neex wax ak ya neexul wax mm-hmm. hmm. yaa ngi dégg bu baax <laughs> manees na ci liggéey ndoxum daqaar manees na ci liggéey entretien la bu garaaw ndoxu daqaar bu garaaw sax torop waaw moom moom bu moteur bi doon bëgg a kuure sax <laughs> yàlla sama bopp mën na ci ci gàtt. <laughs> <laughs> foofu lañ ci yem. waaw <laughs> am na de waaw ah, am na de. ba ci mag ñi sax nga xam ni. Mhm. dem nañu yaakaar ni fi nu toll. Mhm. waratunu. Mhm. deme neen na ni te fekkati yow mag mën na dem baam am juróom-ñett fukki at ci góor. dëgg la dëgg la te léegi mag ñee gën a wóor sax. ndaw ñi léegi fanweeri at rek. waaw ah, dëgg la de. waaw montre commencé direct la. di retard rek. montori retard rek heure normale boo laa nga koy am da nga wër fukki fukki koñ sooga ci am lu la ci leer yàlla xam na ko waaye yooyu sëñ bu am na mhm. am na saafara bu baax sant mais sëriñ bi ki nga xam nag aussi euh, moom day jàmbat awara buy dellu mhm. loolu lu koy waral ak nag nga lan ko mën a dimbalee rab dana ko def bu baax sax ak stress bu metti torop ah. ak suukar ah ñetti yooyu problème la ci waaw surtout rab nag da cee saay saay d'accord am na rab boo xam ni. Mhm. sa jabar ni ay waay lay bañ. sëñ ko kooku kooku moom rabu bandi la. boobu lay mujj dégg ay waay waa ah dit bés bu ne ma ni rabu ceddo doo ah, am na rab buy naan lu nit nit la am na boo xam ni. Mhm. danaan la sa weer wi boo ko fay ko. Mhm. fekk seeti woo ay tur yu bokkul. duma duma la may jàmm. koy def ba pare rëccu ko. waaw na rab boo xam ni nag mhm. ndaw si la lay xañ mhm. léeg-léeg du doon waa ji sax moom la rabam waaye ndaw si la rabam di delloo mhm. <laughs> ndax bëgg na ndaw si am lu mu xeebe waaji ji moo waral ndaw si rabam ci boppam mooy éliminer waa ji dëgg la moo tax borom kër dëgg du tëddee noonu du jóge noonu ah borom kër ah déedéet sëñ Ibou ni gaañi di tëddee yàkkamti rek daanu ci diggub lal këmax këmaxee ci wàllu tëdd sans bismillahi doo léemu kanjang kanjang ah da dal foo xam ni dañ lay foroote ji kese. dëgg la de. <laughs> ko sëriñ bi boo léemoo na ne ci lal bi. Mhm. waaye da nga oh, fii daa mel ni am na lu fi. am na ah. boo léemoo nag. o mhm. o oh, oh, rek. ak i onk yu dul jeex. dëgg la fikkiti yu. Mhm. yàlla doy waar. dëgg la <laughs> <laughs> mais sëriñ bi kon borom kër naka la war a mën a a duggee ci lalam tëdd. sëñ bu. boroom kër day mujje tëdd tey njëkk a ah, loolu ah loolay gàllaj boroom kër. waaw. d'accord. mooy léemu kër gi soo koy tëdd. boroom kër gi. mooy leemu kër gi ngir kër gi yendoog jàmm su xëyee. kon biddanti wóorul ci boroom kër. déedéet. d'accord. ku sa jabar nag di jéggi bis bu nekk di dem di julli ji yow nga tëdd. gëmal ni. Mhm. da ko fi bàyyi dem. Ah. <laughs> sëriñ bi kay maa ngi doogee comprendre lan moo tax ñu naan borom kër yi lii moo tax kay ñu naan borom kër yi naa ni borom kër yu bari daan jug di julli waaye lii ma la ñoom moo ci nekk <laughs> est-ce <laughs> yàlla maandu nag dëgg la borom kër mm-hmm. boo narut woon julli sax mm-hmm. boo déggee sa jabar jug mm-hmm. nel bari jug d'accord xam nga lu tax lu tax yàlla xam na ni yàlla foofa nam fay àndeek soxna si sax ëpp na lu ndaw si ñaan yàlla mu naw te bu waa ji amoon cool-cool mhm. ndaw seey dem wëri natta bu mu teggi ñëw jox ko d'accord hmm. te gis nga kooka boo ko génnee woon mhm. toroxal ko mhm. wala ci julli ga nga fexe ba mu ba ko gëmal ni yow sa jàmmaji jeex macha hmm. am na solo moo tax sëriñ bi <laughs> fi nga war a toog nag buñ la fa toogalee yaa problème dëgg la de yaay directeur te fa nga war a toog. Mhm. fekk neen fa faaj toog fa. Mhm. am nga jafe-jafe. dëgg la am na am na soxna yu koy dund. Mhm. am lu leen naqadi nag. dëgg la ba léeg-léeg dañuy am kersu sax jug. léeg-léeg jigéen bëgg a jug dëgg la waaye xam nga lu may xalaat. sama nijaay nu ma koy jéggee. d'accord. ndax nijaay jee ko waroon di jugal. dëgg la de. <laughs> Ah, ah moo tax sëriñ bi <laughs> loolu nag may naa leen ko te waxuma leen lépp. <laughs> ah ko cof rek. la <laughs> sëriñ bi loolu am na solo de. mais mhm. mais ba tey ci jamono ji nga xam ne dañoo bëgg a tekki. Mhm. bari na fu mu toll ñoo xam ne bëgg nañoo tekki. Mhm. jaral na leen lu nekk. ñii dem nañ ba mujj gi dañoo yàkkam seen wërsëg di dugg ci xeetu gàllankoor bu nekk. sëriñ bi loolu nag ban jàngat nga ci nga ci nga ci am. bëgg a tekki daal bu mu la tax bàyyi sa diine. ah bu ma tax a bàyyi sa diine. bu mu la tax dugg ci lobi. bul dugg ci lobi. surtout bëgg a tekki. bu la tax a bàyyi sa diine. la tax a dugg ci lobi. ba mu tax nga signaler gauche jàdd mhm. droite ndax boo ko defee mhm. jaay nga sa bopp jaay say mbokk jaay saaska dëgg la sa jibu mhm. wërsëg du fi xaaj bay jeex bu nu deewee fi la koy ba dëgg la dëgg téeméeri xobi déem ak ñett boole koog waaxea lu mu mënut amut téeméeri xobi ngeer téeméeri xobi was-wasoor ak fukk. Mhm. ak ñett. Mhm. cent treize. cent treize. ba cent onze. Mhm. lu mu mënut amut. d'accord. ci ubbeeku laa la wax de. te dama ci ña ñamal tuuti de. est-ce que. <laughs> waa xeexan. ku ko dëggal sa bopp di ko jàng bis bu ne lu mu néew néew ñetti yoon. dañu ni kenn mënul waat ci yàlla ni mënoo doon milliardaire kenn mënu ko waat ci yàlla doonte sax da ngay dund ba téeméer at soog koy am. kon sëriñ daf mel ni waa xeexan moom mooy mooy caabi war a ibbi. mooy finance. <laughs> baraatun di intérieur. ba ma xëy mooy finance. baraatun intérieur la. <laughs> sécurité total. xam naa dañuy dañuy dañuy dañuy baaraam foofu. ah waaw. dañuy teg baaraam foofu su ma su ma ñëwaatee si beneen jotaay. Mhm. foofu la ñuy yëgateewaat loxo. wallaay ndeysaan incha allah nga tàggatee nga tàggoog euh, mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy soppeeku la doon bàyyi xel. <laughs> waaw sant yàlla. Mhm. di leen ñaanal. ak di tëjewaat fi nu ubbee woon rek. Mhm. imaam ba mm-hmm. Badara. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin yàlla na ko yàlla jéggal. ñun ñi fi dese ndeegul. Mm-hmm. yàlla yërëm nu te guddal sunu fan te dolli nu di massawu tey jaale njabootam gépp. ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. fi bàyyi woon. ak la defoon ca moom. ak li taxoon ba barke boobu am ba ku ko gis xam ni kii yàlla cëral na ko. yàlla na ko fi sunu borom yokk loraw njott ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërë ngeen jëfe mbokku internet yi ñu ngi leen di jaajëfal lu baax a baax ci ànd beeg ñun jox leen dox daje benn ci tay incha allah jaa ngeen